si euh, li Georges Nesta wax te maître wax ko aussi luy euh, lu xel mën a nangu la euh, quand avocat bi doo constitué wu yoon la ñu may ko temps bu mu mënee xool dossier ba mën a conseiller au mieux ki nga xamante ne mooy client am. et ce qui est étonnant Pape Makhtar moo di ne tribunal bu Ndakaaru bi bari na yu ñu fay programme ay procès renvoyé ko pour x raison te raison yi maître Ous maître Moussa wax sànq dina ciy bokk très souvent te nag dafa am yoo xam ne eh, xel waxuma sax yoon mais xel rek moo ko war a nangu. moo mhm. ne su fekkee ne Ndeye Khady njaay moom dafa ñëw pour defendre boppam. Mhm. ànd ak ay avocats am ci ñoo xam ne yoon moo leen may ne ba ci bisu procès bi mën na ñëw constitué wu ne dañ ko bëgg a défendre. Mhm. ba pare yoon may leen ne su fekkee dañoo constitué wu dañ leen war a may temps pour ñu xam dëgg-dëgg lan moo ne ci dossier parce que ñoom nekkuñu woon ci procédure bi ñu ne ci juge d'instruction ba yu demee noonu. loolu respecté yoon mooy may ñooñu man cee am accès. mayoo leen ko ñoo ñooñu buddee maanaam ne ñoom mënuñu defendre euh, client boo xam ne xamuñu dëgg-dëgg liñ koy toppee bu ñu buddee euh, le tribunal Georges mi ngi koy fàttali sànq wax ne yoon wax ne tribunal mënu ko àtte te amul avocat. Mm-hmm. te loolu xel moo ko mën a nangu quand su fekkee ne avocat da nga commettre benn avocat d'office ne pour mu ñëw defendre ko mais avocat boobu ak nu mu mënti tudd même bu fekkee ne aras la jóge démb tamit ñëw wàcc suuf si. mais avocat boobu mais dina jël temps Pape au moins pour lire euh, dossier bi xam lu ci nekk. Mhm. pour xam ki muy défendre ci lan la koy défendre. avocat boobu bu ñëwee naturellement li muy def mooy demander un renvoi pour pour mën a dem. Mhm. léegi la question que tu te poses mooy pourquoi renvoi wërta mën a am. Mhm. c' la question qu' on doit parce que renvoyer un procès ne veut pas dire que kenn du ko àtte. kenn waxul ne bu ñu àtte dañ ne avocat yi waxuñu ne bu ñu àtte amuñu sax pouvoir ne bu ñu àtte. dañu wax ne nañu renvoyer. bu ñu renvoyé ñoom ñu jël temps wu xool dossier yi ñëwaat ñu àtte mais loolu su fekkoon ne dañu am souci wu dire le droit rek te kese kese kese kese tax koo jóg leneen leneen raxu ci mhm. mais je crois que mënoon nañu renvoyer beneen jour ñu ñëwaat ak toute la sérénité qu'il faut plaider euh, enfin avocat yi euh, def seen liggéey ñi war a plaider plaider ñi war a layoo layoo ñu joxe une décision ku nekk tënku ci bu fee bu boobaa yoon tënk ñëpp mais fi nekk nii quel soit ce qui va sortir du tribunal mhm. mais li nga xam ne moom lañ tuddee un procès équitable mhm. yaakaaruma ne mën nañ ko waxee ci biir. Mhm. Pape Sané da boobu la avis que ni euh, bu ñu demee ci cëslaayu procès bi li nga xamante ni dafa nekk ci surtout benn procès bu équitable tout concours fu mu ne nii ak li maître Moussa Sarr wax. Mhm. ak li ñu jot a man maa ngi woon tribunal ce matin mais wax fa dëgg yàlla c' un spectacle bi nga xam ne qui n'honore pas euh, le Sénégal pour dire vrai. Mhm. man maa ngi fa fekk ay observateurs yi nga xam ne ñii ay espagnol nañu. ñii ay français nañ ñii ay belge nañu espagnol yi du ut ku leen di sax traduiral un peu pour dire que ñoom finalement seen problème c' était où est mhm. il n' pas là Où, est, euh, où sont ses comment on peut juger Donc, Moussa may fàttali ni fii démb fii ci plateau bi laa ko xool mën na leen ce procès là. Mhm. amuñu ci benn intention. liñ ci am liñ ci bëgg mooy Ousmane ñëw taxaw. Mhm. ñu jël xale bu jigéen bi mu taxaw. Mhm. comme formé nañ ko pendant deux ans jàngal ko tubaab. Euh, jàngal ko yu bëri bëri ay mun a wax mun a tontu mun a dàgg ñu ñëw teg ko ne ko léegi nag da ngay ñëw naan ko jacuzzi bi. Mhm. naan ko ronlal bi naan ko ci kii bi <laughs> naan ko ci kii bi kër. en fait ba ma xëccee. waaw ma ne ko lii. est tout le but qui te vise parce que boo Moussa Ba. <laughs> est grave je te jure. Euh. gis nga euh, la stratégie des avocats de ko moo taxoon ma ne je ne crois pas que tey bi ma demee. Mhm. dama ne ñii du ñu renvoyé xam nga ndax lan. parce que l'inter l'image l'image l'image qui était la mieux partagée par tous les reporters qui étaient sur place mooy que dafa mel ni dafa amoon une consigne qui a été donnée pour que affaire bi ñu vidé ko au plus au plus au bout de huit heures neuf heures dix heures de temps c'est-à-dire ñi bañ a génn romb minuit hmm. na lépp pare tey na lépp pare tey parce que pourquoi jàpp nañ ni que la petite là mënul subir un contre-interrogatoire mooy Adji Sarr. Hmm. munu ko subir. ba tey ji c'est-à-dire sans avocat. Hmm. Ndeye Khady Ndiaye rek réplique yi mu koy indil. ba ngay dégg juge bi di ko poser ay question questions yi nga xam ne c'est-à-dire c'est des questions extrêmement subjectives. c'était pas de questions yi nga xam ne euh, voilà mu nañ ko Adji Sarr mais yi ñu doon posé euh, Ndeye Khady Ndiaye c'était extrêmement subjectif. donc ne serait que pour contre Ndeye Khady Ndiaye rek mënul woon assurer donc imaginez Moustapha 30 avocats ak les 9 avocats de euh, Ndeye Khady Ndiaye donc moo taxoon. oui tey ce matin bi ñu ñëwee. Mhm. lii lii ñu njëkk jàpp. mooy que ce procès là va se tenir quel que soit alpha. mais naka Georges waxee ak Moussa maître Moussa Sarr waxoon. Mhm. c'est-à-dire procès criminel. Mhm. amul dans l'histoire du Sénégal. da ngay ñëw même temps au chambre euh, kii cour d'assises ñëw ba procès ñu amoo avocat ñu indil la avocat commis d'office ba pare on renvoie mm-hmm. waaw mais pourquoi bii on ne renvoie pas mooy kon li ma wax les gens n'avaient pas besoin d'un procès juste équitable donc ce qui donne raison carrément à Ousmane Sonko waaw d' accord d' accord Mame Birame euh, pourquoi ñu euh, bëgg euh, coûte que coûte amal procès bi tey pourtant xaar nañu plus de deux ans boobu ba tey amal lu ñu procès lan moo tax jamono ji ñu ni coûte que coûte procès bi dañuy amal dañ koy amal ci condition yoo xamante ni dafay sax violer droit wu défense bi. waaw xam nga dañu nekkatul benn instant ci wàllu justice. ah oui. waaw bien sûr parce que li ñu fi soulever yëpp comme étant ay manquements yoo xamante ne nii. waruñu kenn waru ko wan a wax. Mhm. mais dafa bëri. Georges mhm. euh, mu ngi expliquer sànq ne euh, jugement euh, da chambre criminelle forcément avocat dafa war a taxaw. Mhm. mais même bu dut affaire criminelle sax tey jii nii dañu ne bu la police interpellé. tu peux bi ñu lay auditionné déjà nga am avocat. la preuve Moussa Sarr mi ngi dem di assister ah, oh, Serigne Saliou Gueye ak Serigne Saliou te kenn waxagul waxu tribunal. mais xam nga euh, euh, lii yëpp pour man man déjà mu surprendre ñenn ñi sax moo may étonné puisque nekkul la première fois ñu constaté genre yu demee nii surtout daal euh, ci kaawu Ndeye Khady Ndiaye mhm. bii boobu Bourgi xaw ma ndax yaa ngi koy fàttaliku ou pas ci civière lañ ko teg indi ko tribunal mhm. Euh, dernièrement également. sampal ko perfusion. Hmm? sampal ko ay perfusion. sampal ko perfusion devant les caméras du monde entier. Mhm. Euh, euh, dernièrement Ousmane Sonko toj nañ vitre otom. yaa ngi yaa ngi yaa tëb kii faatu ki l'ancien président du Tchad. Hissène Habré Hissène Habré Mangok. Mhm. également la même chose te xam nga sax moom image yi nga xamante ne nii yëpp gis nañ ko tey ci procès boobu da koy gis mu toog tranquillement ci benn mhm. siège taq takk croiser les bras. Mhm. donc bu demee ba tey ñu ne ñu Ndeye Khady Ndiaye mënul toog parce que accusé du toog. Mhm. procès wu Hissène abre bi rek ça prouve le contraire. Mhm. donc may doon expliquer ne Ousmane Sonko tamit la même chose lañu ko def. parce que jour bi ñu koy condamné je pense bu dul euh, jour boobu la sax ci yoon bi lay dem ñu arrêté convoi am génne ko de force gazé ko yóbbu ko tribunal teg ko pour mu layoo. mu nekkoon dans des conditions yoo xamante nii kenn mënu ko accepter. man moom li ma gëm mooy Sénégal fi mu toll nii. mënatuñu wax wax waxu justice bu équitable. dafa mel ni président dafa gane si justice bi daal di toxu te loolu mun nga ko vérifier ci cas yu baree baree baree bëri xam nga bu ñu demee ba toog tey Pape Matar mhm. ñu ne euh, dossier Adji Sarr Sonko la ñuy jugé Sénégal ça pose véritablement problème te dama jàpp ne lépp lu ca xew rek warul bett kenn. pour pourquoi muy poser problème ñu jugé ñaari citoyen sénégalais yu am jafe-jafe voilà. ku nekk parce que en réalité Pape Matar. Mhm. dossier bi tribunal la warul woon a génn. dossier bii tey Adji Sarr lañ doon war wax kañ lañ koy jugé ak kañ lañ ko dul jugé Adji Sarr si boppam c'est la réalité xam nga euh, tey. keppaa gi bu nekkee ne yow da ngay accuser nit. Mhm. mais Pape Matar au moins di nga indi lenn teg ko ci kaw table bi. buy firndeel li ngay accuser nit ki. est-ce que nekkul ci quatre cent et quelques pages yi. <laughs> quatre cent cinquante quatre. près de cinq cent pages. quatre cent pages yooyu li Pape li li li Moustapha wax laa gëm. Mhm. littérature la gën a littérature lay doon rek. Mhm. forcément littérature lay doon xam nga projet bi lu ci lu bees daanaka da cee amul. d'accord à un moment donné dañu demoon ba euh, ñaari camps yi ku ci bëggoo ku ci nekkoon bëgg a yey opinion bi. te ci bëgg a yaay opinion boobu ku ci amoon lenn loo xamante ni jàpp nga ne kat soo ko génnee day yàqal ki ci des génnee nga ko teg ko sur la table avant ñuy ñëw ci euh, euh, euh, waxu sax def nañ ordonnance de renvoi ba dem na chambre criminelle pendant tout ce temps là li nga xamante nii moo fi génn yëpp pratiquement day gën a enfoncé Adji Sarr muy ay audio yu mu seq ak Mamour Diallo muy ay audio yu mu seq ak sëriñam muy témoignage ki nga xamante ne ni moo def certificat médical bi. mais même muy témoignage ki nga xamante ni moom la jébbaloon plainte ba ba mu demal section de recherche di capitaine Touré. Mhm. donc mhm. élément yooyu yëpp. soo ko mhm. jëlee nga teg ko mooy li ma wax sànq rek. boo ñëwee nga ne nit ki daf maa violé mais Pape Matar forcément il faut que nga jël sur nga teg quelque chose sur la table. mu ngi mel ne soxna see di caméra jekk ba dee man ak moom ñu mujjee fii mu xëy dem déposé ji plainte ne maa ngi maam biram kat bi mujjee fii am na lu ma def. mais ci lan ci ci la koy teg. day am témoin Moustapha Diop mu ne fekke na ko wala am ay caméra de surveillance yu nekk fii gis mu demee noonu mhm. wala mu am sax certificat médical buy prouver ne am na la man ak moom lu ñu seq mhm. mais Adji Sarr amul témoin ñi nga xamante ni ñu ngi foofu ñëpp toog di xaar procès bi li ñu lay wax mooy viol mënu faa am mooy témoin yi à part Sidi Ahmed Mbaye te Sidi Ahmed Mbaye moomu version rek yaakaar naa ne mënoon naa tax dossier bi féete boor. Sidi Ahmed mooy borom euh, clé USB. mooy ki doon wax ne da koy day xaar pour ñu violer ko après mu yóbbu ko. moo jaay clé USB à 10 millions ki jaay clé USB. bu waroon am vidéo à 10 millions. d'accord donc moo tax ma ne. tey jii nii amul lenn loo xamante ni dinañu ko wax tribunal. Mhm. te sénégalais yi xamuñu ko woon avant. Mhm. te li ci gën a euh, li ci gën a euh, doy waar. mooy dafa am euh, ñetti nit ñoo xamante ne nii. dama jàpp ne soo yemee ci ñoom kese rek jarul ngay continuer le dossier. Mhm. muy la capitaine Touré. di le docteur Alfousseni Gueye. mais ah, di Sidi Ahmed mbay moomu. Mhm. ñooñu rek boo leen topp boo toppee seen fait ak seen i geste ah nga suivre seen i déclaration li ñu la wax ne moom la ñuy daj. concernant surtout docteur Gueye mais nga commencé am de véritable doute dolli ko ci li doute yi nga amoon. concernant Adji Sarr parce que yow bu nekkee docteur Alfousseyni Gaye moom mi nga xamante ne nii moom moo war a moom moo la saytu te nekkul ci sa bëgg-bëgg nekkul ci bëgg-bëggam capit da nga dem déposer euh, euh, plainte gendarmerie waa gendarmerie ñoo la boole ak moom pour mu defal la ay consultation kooku def lu mu def bind teg ñu ne tey jii nii ña ngi koy menacé boo da ngay xool rek kan moo koy menacé rek nga jàpp ne kooku moo nekkul ci dëgg puisque moom c'est un médecin assermenté. Oui. censé dire la vérité. moom bu nekkee ne xool na ndaw si bind teg ñu soxlawuñu xool sax lan la bind soxlawuñu xool sax lan la ci wax xam nga lan la ñuy xool kan moo koy menacé. kan moo am intérêt à ce que li mu bind. mu soppi ko très bien mu soppi ko. tout simplement donc ma ne kooku boo ko jëlee. oui nga jël également capitaine Touré ki nga xamante ne nii bi Adji Sarr indee plainte bi moom la ko jox. mais amul. contradiction yi nga xamante ni relevé na ko ci discours Adji Sarr ay dama ëmb ay ëmbuma ay j'étais vierge j'étais j'étais plus vierge ay contradiction yoo xamante ni ki nga xamante ni moo dem bay mën a enquête bi sax loolu posé ko problème Pape Matar ba mu jaral ko mu jóge gendarmerie boobu amul cohérence déclaration yi amul aucune cohérence nga jël sii Sidi Ahmed Mbaye ñu ne te xam <laughs> non mais c'est que dossier bi vraiment c'est rigolo quoi xam nga bu nekkee ñun Sénégal sax déjà kersa bi nga ciy am pour di ci wax ah day garaaw tellement que boo demee euh, à un niveau euh, supérieur maanaam extérieur ñu ne la le leader de l'opposition sénégalaise dañ koo yóbbu tribinal ñu nekk ko yóbbu tribunal lan la wax. Mhm. ñu ne pratiquement amul aucun dossier bu mu teg sur table à part làmmiñam. Mhm. Mhm. làmmiñam. oui te làmmiñam boobu bu doon day wax toujours la même chose sax ñu mën ci comprendre dara mais làmmiñam boobu day wax lii tey suba mu wax lële. moo tax daal de toutes les façons. Mhm. dossier boo xamante ni waruloon a génn gendarmerie. ñu fexe ba mu dem ci juge d'instruction. ba mhm. tey jii nii ñu ne mujjee na. tribunal. Mhm. lu ci mënti am bu mu bett kenn. Sénégal dafa bokk ci dëkk yooyu Trump doon wax. boo mu ko waxee ñu fi bëri. ñëpp mer. très bien mais amuñu ko mais mais <laughs> plus mais mais ce qui est li li désolant dans cette affaire là Pamotar su fekkee mën nañ ko mën nañ ko waxee noonu. vas-y mooy euh, depuis ñuy dégg tribunal ñu fay àtte ay procès wu viol ba léegi. Mhm. bu mu ci mënti doon gars yi indi nañ dara teg ci teg ci loxo nit ñi. c'est-à-dire que mësuñu euh, mësuñu yem rek ci kàddu sinon kon ñun ñëpp nu sommes de potentiels violeurs ah parce que ku ci nekk ñun mën nga wéet ak jigéen mu ne def na ma nangam ak nangam léegi qu'est-ce qu'est-ce que mën nga wéet dans n'importe quel. Euh, disons Pape Makhtar qui est dans son bureau. Hmm. Euh, je ne sais pas hmm. na recevoir jigéen bu ñëw di wut mën na recevoir keneen ak keneen. comme jamono nekk ak Awa Cissé man ne Pape Makhtar daf ma lii daf ma laaj ñu ne kon comme kaddu Awa wax na ko ñuy wuti ñuy loo xam ne moo koy moo ko moo koy un premier problème le deuxième problème man waxoon naa ko fii ba affaire bi soog nga départ dama ne woon man li ma gëm moo di ne dañu jëm ci benn euh, procès moral c'est-à-dire que dem ci benn procès boo xam ne dañuy toog fekk kilifa gu yor ñaari soxnaam yor ay doomam am prétention wala boog am ambition wu jiite réew mm-hmm. ñu taxawal benn euh, xale bu jigéen mu naan ko maa la def léeg yaa ma def léeg maa la def léeg maa la def léeg maa la def loolu c'est ce qui est de se passer mm-hmm. actuellement au moment où nous et loolu day yomb ci état wu Sénégal pour mu def ko trop xam nga lu tax Pape Makhtar su fekkee loolu la ah. xam nga tax. Mhm. parce que euh, euh le euh, le régime de Macky dafa am chance su tombé ci benn presse boo xam ne au lieu de s'intéresser au choses sérieuses mhm. nga xam ne mooy tax Sénégal jóge ci paa bii dem ci beneen mooy tax Sénégal di xam la vérité mooy taal lamp yi pour nit ñi gis. on est dans les détails yi nga xam ne c'est les détails les plus sordides les plus salaces. sensationnel tey jii nii man wax naa ko depuis le début ma ne l'histoire elle est très très simple. Mhm. mooy c'est une accusation de viol et de menace de mort. si on ne peut pas prouver viol ak menace de mort tout le reste ne nous intéresse pas. Mhm. Pape Makhtar tout le reste ne nous intéresse pas. Mm-hmm. lu fa soo ko doon wuteeg. lan moo fa xew ak lan la fa dem ak jacuzzi laag mm-hmm. lal lan laa lal laag euh, je ne sais pas. en tout cas xale bi boo ko déglee Moussa Ba xale bi bëgg na jacuzzi. mais mais bu mu ci mënti doon on s'en fout. pourquoi parce que. pourquoi parce que xam nga euh, pourquoi parce que parce que nekkuñu. nekkuñu euh, dans un procès moral. boo xam ne dañuy jël Pape Sané wala Moustapha Diop indi ko ci pénc mi teg ko ci suufu garab gi. waa village bi yëpp ñëw génn ñu ne tey dañ koy yedd di ko xaxar di ko xaxar exactement on n'est pas dans ça ci justice la ñu nekk te le tribunal dañ ko saisir pour une accusation de viol et de menace de mort si on ne peut pas prouver viol et menace de mort on passe à autre chose il faut être sérieux mais ce qui est de se passer mais li regarde les réseaux sociaux Pape les gens par le plus de de possibilité de de viol ou de menace de mort ah ña nga fa nekk naan euh, ndaw sa def na ko lii mu ne ko lii. après lii rek duñ sol <coughs> waaw dañuy sol yére rek duñ sol yére da ngay léttoog doo létt da ngay tresse da ngay muuru da ngay da ngay teg yooyu la ñuy waxtaane mais c' est mais benn non benn précision par rapport li Moustapha di wax. Uh-huh. mais c' à dire boo dégloo tey question yi nga xam ne man dama toog di déglu juge bi di ko laaj ndey xat yi. ak xale bi ça porte plus sur. Mhm. maanaam ndax Ndeye Khady maanaam da doon cagatuloo ay xale. waaw c'est-à-dire on a on a jamais évoqué affaire u viol. Mhm. li ma fa toog ba bi ma fay jógee bi nga may woo noonu. Mhm. lañ fa doon wax tenue yi ngeen doon sol. waaw yi ngeen doon sol. ngeen sol yére gaaw leen sol yére euh, waaw boo leen solee tenue yi yéen juróom-ñaari ngeen. <laughs> pourquoi yow Ndeye Khady juróom-ñaari tenue léegi boo amee ku bees nag nooy def <laughs> juróom-ñetteel bi c'est-à-dire des questions yi nga xam ne non mais je c'est pas possible quoi. voilà ah loo loo Pape loo eh, mais ah, Pape tu tu lis les réseaux sociaux non. <laughs> maa ngi koy lire kay. jërul li ngay lire depuis depuis sànq ak léegi lu mu leen doon. ay huile de massage waaw ay ay xaw ma. yeneen ak yeneen. waaw léegi loolu noo ko bëgg a bi dégg nga bu fàttalikul lool ah, nekkul ci rajo bi kese Babacar Diagne mi ngi ñuy seetaan. waaw mais mais mais mais mais xam nga xam nga lu xam nga lu tax euh, Ndeye Khady ñu koy posé question yooyu. oui parce que Ndeye Khady dañu bëgg a justifier sa condamnation pour proxénétisme. Mhm. proxénétisme maanaam koo xam ne. Euh, yow yaa yow yaa indil yow yaa réunir toutes les conditions. Mhm. pour ak góor gi jigéen nga daje ba def nakas dul noonu. Mhm. nga nga nga amee si xaalis. parce que loolu loolu la. mooy favoriser yooyu waaw yaa koy favoriser yaay créer les conditions. loolu la wax proxénétisme. mais yow depuis ce matin bi li ngay dégg nii yëpp que ce soit dans les réseaux sociaux que soit nga dem tribunal di ko dégg ba léegi. am na si élément boo xam ne man dégguma si mooy euh, les les éléments constitutifs d'une menace de mort mm-hmm. maanaam mm-hmm. les pistolets mm-hmm. léegi bi ngay dégg nii dañ la neen massage ñaari loxo quarante mille xaw ma soixante mille massage ak xaw ma sans soutien gorge xaw ma lan ndaw si dem na bay wax ay ay ay ay ay ay pilule ay pilule du lan ah non procès bi kay procès bi xam nga procès bi xam nga xam nga xam nga waxu procès bi heure bii nii déjà am ngeen lu leen par rapport ak discours yi fële suba bu gars yi xam nga xam nga xam nga procès bi gars yi revue de xam nga am nga xam bi rek xam nga xam nga procès bi nit xam ñëpp xamoon nañ que ne wax ji mënul wax ji mënul rafet. wax ji mënul rafet parce que euh, ñi nga xam ne ñoo nekkoon si ginnaaw bëgguñ si woon wax ju rafet. lu luñ si bëggoon mooy au début c'était même pas ñoo xam ne ñi ngay dégg nii ñu ne ils sont impliqués. maanaam ñoo nekkoon euh, euh, ñu doon kii ndaw si di ko encourage nekk ko non preuve dina am preuve dina am. Mhm. mais ñooñu lo seen objectif te quoi bu ñu demee ba foofu. na wax ne yëpp Ousmane Sonko nii la mel Ousmane Sonko lii Ousmane Sonko laa ba yàq deram de tel sorte que ñu ne kii nga xam ne yéen nga yéen yéen waa Pastef moom ngeen di woo ku sell mi nekkul ku sell day dem fële di def lii day dem fële di def lii effectivement ndaw si naroon taxaw si kanamam. ay avocat nara taxaw foofu di ko saaga. Mhm. moo tax il a parfaitement raison. ne man dinañ ñëw léegi ci stratégie Sonko. mais mais mais voilà donc donc en euh, ma ci bëgg a wax. oui oui <laughs> waaw ma ma pare donc grosso modo. Mhm. Euh, am na ñoo xam ne dañ naan wax ji daa wax ji daa war a rafet wax ji mënul rafet parce que ñi ko sekk ñoo ko rafetalul. ñoo ko ñaawaloo pare tey affect apparemment c'était leur administratif. donc euh, xam naa kay dañu waroon bind sax pro procès bi. c' na ñaaw mu ne ko ñaaw na ba dañu waroon wax sax procès bi interdit au moins de dix huit ans. parce que li ngay dégg fii saa li ngay dégg boobu ba léegi suba ba léegi saa mooy loolu. <laughs> d' accord Mame Birame dama ko doon expliqué dama bëggoon a dolli rek. Euh, sànq maa ngi expliqué ne tribunal gawma ne dinañ fa wax lu bees Adji Sarr def na fi euh, xawma conférence de presse la xawma point de presse muuru mm-hmm. toog jàkkaarloog sénégalais yi naan Ousmane Sonko euh, robe bu rouge laa daan sol. Mhm. ne ko lii mu ne ma lële wax ay waxam wax ay waxam te loolu taxul aucunement image Ousmane Sonko yàqu loolu c'était avant bien avant élection yi fi weesu yëpp te terewul ba élection yi ñëwee Ousmane Sonko fu mu génn nit ñu topp ko. Mhm. donc procès moral boobu nga xamante ne nii depuis le début jàpp naa ne bokk na ci seen principal objectif. loolu ça n'a aucune chance mu ébranler sénégalais yi nga xamante ne nii comme ni ko yi euh, di waxee. Hmm. dañ naan Ousmane mu sell mi. ñooñu suñu gé am na si ñoo xamante ne man jàpp naa ne suñu génne woon ay preuve yu yu wane ne Ousmane Sonko li ñu koy jiiñ moo ko def sax. lu hmm. tere ñu topp. Hmm. parce que euh, nee mi ngi lay fay bu baax a baax. Euh, bu ma fay de. mu ne waxal sama rakk Pape Maxtar maa ngi ko fay bu baax ça dire qu'il est en train de nous regarder. <laughs> ñu koy nuyu bu baax boobu Babacar. bu ma fay teel a zappé seen di ko nuyu bu baax a baax a baax alors euh, ñu das ak yow mustafa